lool. léegi bu waaye kàddu yi lañu soxla. moom monsieur Mbacke baal bi. ragaluma ànd ak Moustapha Diop. maa ngi leen di fay. tey gis la si bésu Moustapha Diop bi. waaw Moustapha Diop nekk suñu raq jabaram di sama raq ma yar ko muy kolle mu baax mi kon tey dañ koy ñaanal rek yàlla may ko mu jël maire bi ndax ragaluñu lool ndax daf ñoo yëg mën ñoo teral bëgguñu waaw. tey lan ngay gis tey jii fan nga nekkoon Aïda. waaw maa ngi woon Italie. da ngaa def da retour wala nu mu demee. non dama ñëw nii vacances rek mu tombé lépp ni ngir Moustapha Diop. aslem de dëkk. waaw cinq waaw fii laa juddoo fii laa màggee fii laa yoroo. tey ñoo gis la nga ñëw def fii la doy waar daal mel ne fàtte woon. non mënu xam nga dañuy xaw a xësal. ku la xamoon xam na si ambiance mën a fecci. ba tey mu wala nga fàtte. ah loolu mënuñu ko fàtte taas wa sagin ki ca. ñu ngi lay jaajëfal jaajëfal.